salaamaaleykum waa Sénégal rawatina waa Fatick. ñun gonaay Fatick ñoo leen di ñaan. ngeen jàppale suñu mag Ibrahima Sarr. képp ku ci def yàlla fay la. tous pour un, un pour tous. Sauvons Ibrahima Sarr.